Sénégal jigéen ñi dañuy liggéey nekk ay jàmbaar lool waaye duñ am benn këyit da ngay gis koy li xam ni day liggéey pendant des années des années des années te du am benn këyit boo xam ni dafay permettre ñu xàmmee ko léegi nag APIX mu ngi di def loolu bureau de Mbuzandive mu ngi foofu di leen capacité at euh, yeneen ak yeneen banque yaa ngi fi di leen lebal xaalis mais boo amul document mënoo prétendre à tout ça donc nag loolu la ñu gis te ñi suñu base de données bare ñoo xam ne dañu ko demandé ñu daal di nag sélectionné si biir ñi nga xam ni vraiment ñoo gën a bëgg ñoo yàgg demandé ñu daal di leen sélectionné jël seen mun toll si deux cent femmes deux cent yooyu cinquante groupe de cinquante leen di foo léegi former leen woon nañu le représentant de l'APEX woon nañu le bureau de mise nga xam ne ñooy lebal xaalis bi woon nañu ñi nga xam ne aussi ñoo leen di expliquer parce que li olofoo di wax moo mën a waaxu xam yoon yoon bee ko gën ñu teg leen nag ci yoon bi yoon boobu nag buñ leen ci tegee duñ leen bàyyi ñu dem dañ leen di encadrer ba dans un an en 2022 bu ñu ñëwaatee ñag ñu daal leen woowaat ñoo ñëpp seet ku nekk bi nga tàmbalee liggéey ba léegi foo toll. Euh, ndaje bu am solo la ñëw tey fii ubbi ci turu soxna Salimata Diop Dieng mu jëriñ bi yore wàllu jigéen ñi njaboot gi ak kaaraange xale yi euh, direction bi nekk ci ministère muy dofef bi yore kuréelu jigéen ci Sénégal mais tam du leen tàggat pour ñu mun demal seen bopp ci wàllu formation ak ci wàllu koom donc moo initié ndaje bi Euh, jëmale ko ci tàggat jigéen ñi pour ñu xam nan la ñuy nekkee nan la ñuy gérer mais également bu ñu amee ay financement nan lañ koy saytoo te leen li ci am solo tam ñu leen di tàggat pour ñu xam ci yan yoon lañ war a jaar pour seen kuréel yi mu dëppoo ak yoon maanaam lépp luy formalité lu yoon tëral pour booy créer entreprise wala booy créer société wala GIE ñu xam lool nan lay demee ñu xam tam lan moo leen war bu ñu amee këyit bopp ak lu leen mën a jural ci njëriñ ci wàllu non seulement dinañ fay impôt mais dinañ war a mun a am assurance dinañ mun a dem bokk ci commande publique bi di compétir bu am ay marché donc formalisation lu am njëriñ la et donc ñu gis nag entreprise jigéen yu bëri nag ñu ngi góor góorlu di béywaar ci gox ak gox-goxaan yi ci domaine yëpp ci wàllu fruit légume ci wàllu maraîchage ci wàllu vente mais li ci ëpp du ñu am kayit bu jëyee amee du am assurance day indi gàllankoor financement yi ci war a am tam duñ ko am parce que amuñu garantie yu doy donc madame le ci programme bi ko président daal dénk pour tàggat jigéen ñi dooleel leen dafa bëgg jigéen ñi nga xam dañoo ay ay entreprise yu ndaw ñiy jaay gerte di jaay gajji di jaay yéen mu dooleel leen ci wàllu tàggat leen mais surtout dooleel ci wàllu financement ba ñu nekk ay femmes championnes. njaay mi tamit ñu jàppaleen ci parce que produire baax na torop mais nga produire mën a jaay moo gën donc nag léegi les technique de vente en ligne promobile ñëw jàppale ñu ci pour ñu pour ñu xarañ ci loolu may leen ay puces accompagner lu ñu soxla ñu taxaw ci ba nga xam ne ñu mën a éclore seen potentiel potentialité boobu nag buñ ko éclore ba jàpp bu baax ba jàpp yoon bu baax nag ñu daal di leen nag nag bàyyi ñu dem gunge leen nag ñu dem ci foire yeeg yeneen ak yeneen loolu daal moo doon sunu yitte te ñi ngi ñaan nag jigéen ñi tàmbaleeg bisimilahi rahmaani rahim terminé alhamdulilahi rabina parce que ay jàmbar loolu ku leen jàppale dinañ dem merci di mun a jóge Sénégal di jaay ci biir région yëpp mais également ci bitim réew pour ñu am këyit loolu mooy solo ndaje bi ñu tàgg leen ci wàllu gestion ak wàllu leadership mais surtout ñu xam leen opportunité yi am ci wàllu financement fii ci biir ministère bi mais également à travers la DER. et bu loolu weesoo tam dañ leen bëgg ñaax pour que li nga xam ne nii mooy les métiers émergents tey Sénégal pétrole feeñ na fi gaz feeñ na fi ci li ñuy wax contenu local pour ñu ciy def ci fànn boobu ñu jiital askan bi ak euh, doomu réew mi. dafa am pàcc bu bëri boo xam ne jigéen ñi war nañ ko mën a liggéey ci wàllu restauration ci wàllu habillement te bu ñu leen tàggatee dina tax lool ñu mun ci dem bu baax a baax dina tax ñu mun leen dooleel pour ñoom seen activité seen koom-koom ñu gën a am solo te ci loolu nag ñu ngi lu ndaje bi di remercier bu baax a baax partenaires yi jàppale ministère bi maanaam UNIFAM mais surtout service état bi lëkkaloo ak ministère bi jàppale dafa muy bureau de mise à niveau ak APIX ak experts yi et di féliciter bu baax madame la directrice parce que lii muy def lu am solo jigéen ñi rafetlu nañ ko ñu ngi leen di encourager pàcc bii bu njëkk la pour ñaar téeméeri jigéen dañ leen bu loolu weesoo dinañ leen kon ne accompagner pour seen entreprise yëpp am kayit yi ci war bu ko defee te ñu mën a ñëw jël financement yi àggale seen activité dooleel ko suqali ko.